jim jimboor yi dañoo gis euh, ay site ñëw jël si la dama gis ay site ñëw jël si la nga défendre aw baaba mhm. pourquoi aw nga défendre aw baaba mhm. non man ak coowam nu mu bëree liñ koy mhm. xëpp yëpp hmm. waaw mais xam nga mbay aw ce que xam nga musuma ko gis hmm. Hmm? musuma ko teg bët ku dëgg non man musuma billahi lazi laa ilaaha huwa non man maa moom sama ngëmukaay waa xaara gëwma la waa xaara moo xa la waa léegi da nga may déglu ah. billahi lazi laa ilaha illa huwa musuma teg aw baaba bët yi mhm. man xam naa lépp waaw ah, ah. Mhm. wolof dafa wolof dafa bëri caakaan mhm. man ñi lay dégg micro man man ñoom duñu ñoom de mais dama lay wax non dama xam nga ma man xamee ah. woo ma caaxaan xam nga euh, saa bu ma xëyee euh, showbiz lan moo ma ci dugal saa bu ma xëyee dama naan yàlla yàlla nag ma boole ci liggéeykatu yonent bi te yonent bi dafa ne Eh, l'islam diinay fatalante la na ngeen jël l'islam ngeen tassare ko si aduna ñun ñep kenn ku si nek jotali ki yonent bi moy nga wax deug mm. xawmako ma mais lima am muy source mm. nek si sama loxo mm. lool rek la netali mais xawma ma aba aw baba musuma ko teg bët billaahi wallaahi wa non ko faral wax deug loolu du est-ce que du naa yow xamoo nit ki. xamoo nit ki lu muy dund xamoo lu muy sàngoo xamoo fu muy tëdd xamoo fu muy ni mu kii woom xamoo lii nga faral ko naan ay dib lañ ko bàyyee si yooyu di no mais xam nga julit la may jullit mm-hmm. dama gis ay nit xam nga mbay euh, journaliste si Sénégal bu boo demee ba journaliste di joxe information mu joxe ko information ba pare euh, euh, waa kër Aïda Ndiaye Badaloo woowaat la mbay ne la ndax li diw wax dëgg la média dafa dem ba toll foofu si Sénégal dégg nga ma wala déggoo ma. journaliste dafa am day génn ah. xaar baal ma. journaliste léegi day génn joxe xibaar. <laughs> Eh. yow nga seetaan ko sa télé ba pare. woowaat nit téléphone di laaj ndax dëgg la kon boobu réew war nañ ko defaraat. <laughs> naanal moo tax ma ne la man man man <laughs> lay man damay wax rek te yàlla tax mais xam naa ne moom jullit la man jullit laa. dàqu ma ci moom dara. dara dara. ah est-ce que wéef dugul non barki seexu naa <laughs> Ahmadal Tidiane barki Baye Niass mi may yaakaar kooku xam xamuma ko yorul sama numéro yoruma numéro am. waaw xamu la xamu la xaara xaara na laa boole kenn dina dugalal mu wéef non ma boole kenn duma ma boole kenn man du ma boole mbay ma wax la dara am na artiste bu mag bu jigéen bu nekk fii war na génn wax loolu voilà euh, monté woon nañ ko dil ba sëyam war a tas ma woo ko téléphone ne ko demal ci diw sa sa audio nga fa bu siiwee sa say tas te joxuma dara. bon ko ban artiste la kooku ban artiste la. Djimbory Segg ay itaxul laaxa non Djimbory itaxul laaxa ban artiste la xam nga non showbiz man man kenn mënu maa showbiz man ban artiste la. su génnul wax lu baax li ma ko defal man du ko wax. mais ban artiste la pour wax la rek ni mais jox ñu jox ñu kii jox ñu jox ñu benn lieu. dama ni audio yi lan moo si nekkoon artiste la li muy way sax si taasu la gën a jege. Mm-hmm. nit Sénégal fii monté nañ ko coup ba dara desul. jëkkëram moo doon waxtaan ak kenn kooku capturé affaire bi wax yi jëkkër ji doon wax te jëkkër ji bu li mu doon wax aayut jox ko nit nit war ko indi ci kaa yaa ngi dégg man ma dogaale ko ne ko ma woo ko téléphone laajte numéro ba am ko woo ko téléphone ne ko sa audio nangam mi ngi ci diw woo ko téléphone. gaaw xaaral woo ko téléphone gaaw soo ko deful sa sa sa sa sa sëy mun na tas. ba pare xoola fi may toog ci Feeling Dakar ma wax ko ma répété ko maye naa fa juróom-ñaari sëy pour mu dee boo du dëgg juróom-ñaari sëy non xamale ay nit ñu sëy boole ay nit ñu sëy juróom-ñaar xoola damay jaamu yàlla rek lii aw ma ci tous yow sax xam nga ko parce que yow doon duma la nëbbatu léeg-léeg ma ne la mbay problème mu nàngam nangam bu dul yow mii ma ñëw wax la sama soxla waali nag gàcce nga laa mais dama ne amul keneen ku taxaw pour ànd ak yow ci ay caaxaan awa baaba dama gis ni gars yi li ñuy wax du dëgg awa baaba ak bugaan dañ doon sëy sëy dañ fekkoon sëy dëggantaan sëy dëggantaan da xam nga lii jarul yow foo foo foo yëgee foo foo amee suuf si ñu ne aw aw aw baaba dafa am dafa sëy ak bugaan dafa sëy ak bugaan xam nga tey information yooyu kenn xamu ko kenn amu ko si senegal waaw xam nga journaliste yi bu ñu nekkee si internet bi di fen mhm. di wax ni ay dañ doon def naka su dul noonu doom juddu seeg nangam te lii sëy la mhm. bi sëy bi sax di tas ma ma ñamal la dara tribunal la jeexee sëy bi tribunal la jeexee li tax ma leeral ko mooy fen yi gars yi di wër di fen di yàq deram ba pare ma wax la dara mbay mhm. xam nga man aw baaba dama ko dégg nii rek mhm. mais bi ma ko dalee dégg ba tey est-ce que mus ngaa dégg nit génn ne la kii maa doon caaxaan ak moom maa ko doon tëddee amul de kenn waxul lool daf ma sàcc tamit kenn waxul loolu mais pour pourquoi ba pare ñun xam nga lan lañ war a njëkk a xool coowal Awa Baba ci internet bi pour nañ ñan ñoo koy publier ñan ñoo koy wax parce que xam nga gars yi dañoo dem ba biir politique ci politique bëgg a politique ci Bougane mm. tax ñu ne Bougane dafa takkaat Awa Baba nii moo tax mais mais am na xal bu jigéen bu ma dégg bu ma dégg mu koy wax ne da xaw ma benn tiktokeur bu mag mi ngi naan euh, mi ngi leeral information yi foofu. wala ma wax la dara kooku nekk France noonu. Mhm. est-ce que xam nga li muy def noonu l'islam bugg ko. waaye ban lislaam xam nga ne ñun ñëpp li ñuy def lislaam bëgg ko ñun ñi liggéey yëpp oh, o dañuy wax gis nga affaire showbiz yii nii nañ ko nañ teg yëfu yàlla <coughs> affaire yàlla nañ ko sànni teg ko fële lislaam boo ko xoolal bu ménguwul ak lislaam dara léegi ma daganal comme nan nga ma daganal nan nga koy daganal ne xam nga nu ma la li ñuy liggéey yow jumbo li ngay liggéey amul yàlla amul yoon ay caaxaan kese la man tamit li may liggéey yàlla nekku si caaxaan kese la ay fen la waaw moo tax doo ci am yàlla yow mais man dama ko ciy am ma daganal ko waaw da ngay déglu ma daganal ko mhm. xoola képp ku indi sa yëpp ci internet bi mhm. ba ñëpp gis ko mhm. ba suñu doomi ndaw yi gis ko mhm. ñun ñëpp am nañ wàll pour wax ci doo ci am bàkkaar parce que moom moo ko indi daganal naa ko léegi du dëgg léegi kooku dafay teg ay góor ak jigéen ñuy wax ni nii la ñuy sëyee nii la ñuy tëddantee yonent bi nee na boo bëggee gis kuy dem safara xoolal ko xam ni lépp lu mu defanteeg ay jigéen jigéenam ñëw wax ko kooku day ñam safara nga dugg ci jigéen ci ruq ngeen defante yéen ñaar ba baax nga génn di nettali nitu safara nga di nga dugg safara jigéen tamit nga defanteeg sa góor ba pare génn di ko nettali di nga dugg safara tey wax yonente kenn du ko weddi moo tax ma ne la jigéen bi li muy def noonu su fekkoon ne moom mun nañoo assurer ni moroomu jigéenam ñu am vingt deux ans ñu am trente am quarante ñoo koy seetaan waaw mais tey ndax mun na ma assurer man sama doom du sappe jàpp ko moom te tolloogul ci gis yooyu kon mi ñuy tooñ ñun ñëpp dama ne dafa am ñoo xam ne dañoo jël Bougane bëgg cee politique boole ci Awa Baba ni Bougane jàppam bii ñu ko jàpp fële mhm. euh, dafa takkaat Awa Baba Awa Baba jigu ko moo tax ñu jàpp Bougane te ñoom ñaar amatuñ link lan nga ñu si leeral ba pare ma wax la dara am na benn borom alal bu mag boo xam ne bërki démb dafa woo benn animateur boo xam ne bu nekk ci télé bu mag ne ko jàppale jàppale ma ya ci jàppale ma jàppaleel diw jàppale diw boobu xam nga lan la pour muy wax ci Awa Baba lu ñaaw. ci télé. ci télé waaw kooka lànk bu ñu demee nag réew ba boroom alal ñi ëpp alal wara jël seen aral jaamoo ko yàlla di ko jaamoo seytaane boobu réew tamit mat naa seetaat mbay Awa Baba xawma ko damay wax dëgg te yàlla tax. Jimbori bu man wax loolu man su ma namee waxal nit ma waxal la yow lu xam ni fen la. yow foo jëlee information. foo ko jëlee foo jëlee information yàlla nañ ma ko dëjalee. foo ma jëlee foo jëlee information yi ko dajalee laa wax. mais foo jëlee information jox ma sa xaalis ma pen non jamais mbay lii su ma si doon pen wala may faral nit dawal naa oto dawal naa ci oto samay damay am fa problème facture di am problème courant di am problème dépasse comme ñëpp bu dul kër waali du ma taxawaalu kër kenn moom nag yaayam moomu ko dénk du dëgg ne ma même bu la bàyyi na ko jàpp bu xoola bala nga si doon xam dara na ma bàyyi su ma bàyyi du ko bàyyi c'est la première fois tamit man pourquoi c'est la première fois mosuñoo dégg aw baaw aw baaw génn rek génn def sorte man loolu moo ma jaaxal non déedéet xam nga man loolu du ma ko lijjan est-ce xam nga dégluwuma sortie bi man source yi ma yor laa laa laa dégagé mu dem hmm. parce que dafa rafet génn nañ fi di ko taqal lu nekk segam moom daal wax dëgg yàlla mi ngi jàpp liggéeyam di def bëgg a xas bugaan jarul jaarale ci awa baaba yow tamit waxa rek hmm. dafa rafetul daal comme Awa Baba si ñu tënk ko génn dem feneen Awa Baba ak Bougane sikkatuñu dara. dañoo sekkul lenn liñ naan nii nii nii. nii nii nii nii takk ko takk takk suuf amul. amul léegi nag politique la pour xase ko Bougane mhm. parce que doon nañ ko si xas naan daka ëmbaloon te yooyu amut. sëy la woon sëy sëy ba jeex na. Mhm, bokk na ci li yàlla gën a bañ te mu dagan xam nga mooy lan mooy passé bu dem mënta am na rafet mais nee na bu demee bu kenn nettali lu ñaaw si moroomam léegi Sénégal nag da ngay tas dem doo nettali ñoom ñoo lay nettali. nañ ba duuli. dëgg yàlla loolu kese la quoi man. tey nag euh, euh, jàkkaarloo na euh, jàkkaarloo na ak maa ngi jàkkaarloo tamit ak Jimbori Jimbori ku ko xam xam ko sama digganteeg moom chaque chaque semaine war ñoo def benn émission wala ñaari émission mais bii dama ko woo ba sonn jëlul xam nga Jimbori ay affaire am <laughs> Jimbori foo nekkoon. a jiwoni kadi da kay dekone quoi yow mama wala ba sonn joluma mama jikki jikkit la si ya sit da sa sawa ya, <laughs> ya ngi ni on ah, wa ya ngi ni yow si sa bopp ngi nii jimbori da nga am tan yi yaa commencé am eh, eh, sponsor yu bes non man do eh, am sponsor xarit la yam hmm. ah. tay am nga benn sponsor bo xamante ne ah. waaw lay jay Uh-huh. Uh, cuus xam naa ne jimboor yi doo solti ay daal yu ñaaw de sa yi nga sol <laughs> ñaaw na de waaye xam naa ne xam naa ne yi muy dafa ko yi muy jaay ka daax dafa waroon da ngaa waroon sol bu eh, kii wala boobu uh-huh. luy campus waaw ñu xool ñu ñu ñu mën nañ ko xool wala bu la neexee ah. nañ ñu ko adduna bi yëpp ak sama uh-huh. fans yi ñu ah. xool eh, jimboor yi ban daal tey day sol uh, ak dàllam yu ñaaw yi mu duggee si. si si waa kër Aïda Ndiaye Badolo. bitik Aïda Ndiaye Badolo. waa kër Aïda Ndiaye ban ngay sol ban ngay sol si daal yi. Eh, ah, jimbori te eh. ah, non Jimbori nag tekki na léegi dafa am sponsor daal barki Sëriñ Tuubaa. te yàgg kaw. <laughs> golo ga gore. <laughs> Jimbori ah, yi ñaaw na mm. mais xam naa koy changé. ban ngay sol ban ngay defee émission. Hmm. Hmm. ban émission ban kii sol. ban laay sol ban ngay sol ban ngay sol euh, ah, ñu commencé. ñun moom xam nga daal bu rek la sol bu ñuul. waaw ah, campus la tudd. Ah, bi ngay sol ah. daal bu bees la. waa kër Aïda Ndiaye Badaloo hmm. ñoo koy indi. seen numéro nekk si 78. 256. douze vingt cinq ah douze vingt cinq képp ko xam ne yaa ngi bëggee jimboori ndax ak bëgg nga jimboori ak li may wax neex na la ngir yalla ak yonent bi même boudé dara la sétal ci man nga jënd fi ben dal ma xamni bëgg ngam la ilaha illa wa nga contacter numéro bi aha numéro bi dugal atal ñu xol numéro bi da ngay def 78 euh, mhm. da ngay def 78 200 256 12 25 12 25 waaw 256 cinq 25 78. Ah, waaw 78. waaw 78. 256 12 25 waa kër Aïda Ndiaye Badalou. jaajëf euh, nekk suma xarit quoi. acca waaw man damay am sponsor xarit laay am. Mhm. parce que tamit wax dëgg yàlla ñoom it jigéen la mais jigéen ju mën yenn góor yi la quoi. Mhm. wax dëgg yàlla jàmbaar la. jaajëf jaajëf ci góor ah. sama kër gële maa ko fas yéenee yanu mais pas ma teg ko ci ay fen wéer yow tamit. ñii xam nga leen. ñu ñii xam nga leen ñuy wax. atia léegi ñii wépp <laughs> xam nga ay ñoom aada wépp aada moo ñoo ñu wépp ñuy wax soo ko wéppee mu génn duulal la yaa ñu dégg beneen wépp kiñ daan wépp moom gis nga ko léegi ma nga ca kaso yaa ngi dégg mais man kenn du ma <laughs> ñu defaat beneen sortie mhm. nga ni Ameth Ndoye day jooy rek ay Ameth Ndoye ku baax la. non dama ni nga défendre ko. non nga xarab ko. xalabu ma Ameth Ndoye xalab da nga ne Ameth Ndoye xaw ma nan waaw léegi bi may doon wax ni Ameth Ndoye li muy jooy waxu leen ko waaw waaw boobu jàppaguñ ko kon xam nga kon daj naa ko xam nga fan laa trouvé Ameth Ndoye hmm. yaakaar ni li muy jooy jooyu ñorub hmm. bi Macky Sall di ñàpp suñu xoon jooyut mais farloog moom moo tax waaw ma xoolal ma wax la dara hmm. est que xam nga am na benn leader politique bu fi nekk ak benn chroniqueur coow li bëri. Mm. dafa am benn règlement de compte bu ñuy régler ñoom ñaar man xam naa loolu. kanaka la ah, yow daal yaay tudd ay tur booy tudd ay tur mooy dégager samay source ah man tudd ma tudd de man Ameth Ndoye laa. yaa waaw yaa waaw waaw da nga war a laaj. lan mooy problème am ak Sonko. mais dégg naa ay eh, moom nee na ma mbokkoom la xaw ma. déggloo ma dama ne xam nga tey dafa am réglement de compte boo xam ne moom réglement de compte bu yàgg la est-ce que nekkul loolu lañ indi ci politique loolu la amet indi bu ko réglé ci politique tamit lu xam ne bi ngeen koy def kii nekkagul ci politique kii chronique boo ko indee mais Sonko waxul de amet mooy wax amet dama ni jooyu ñorut laa wax loolu laa wax jooyu ñorul ak niñ ko pamti pamtee dugal ko si kaso ba euh, loo si gis yow. xam nga tey ku sarmaat yaa ko fekki. ma ni ku sarmaat yaa ko fekki. loolu wax waxu olof la. wax boobu dégg nit ko dégg. nit ki fu mu fu mu wul bu mu fa mbaa bu ko bu ko moo fa foo warta dem boo fa dem man kenn jàpp ma yow da fiir nit ñu ne la indi sa permis ana permis bi ah yow la ko dénk xanaa da laa dénk permis loolu kenn yëg ko waaye dama ni yow boo fiiree nit ñu def ak association te am naa permis ñu ne la dama indi permi bi waaye yow ngasum ñaam bi nag boo demee bañ la ci yoori buum dépassé nga ren bi indi permis kese ana permis bi ana permis ah ah xanaa mu leeral ko enquête bi booy affaire yoon yoon la affaire politique affaire politique la mm-hmm. gis nga euh, affaire Sonko mais Ameth Ndoye pourquoi chaque jour attaqué waaw xam nga yow mbay dañuy paase wax nga dellu si di wax dama ni est-ce que amuñu réglement de compte boo xam ne dañ ko indi am naa source boo xam ne mm. règlement de compte bi feneen la mm. mu ñu bugg ko régler moom ci politique mm. te xanaam loo actuellement nii si Sénégal lu nit ñi di xalaat si ko amatul lu ko di xalaat ci nit ñi moo fi nekk ah boo koy wax pour contre ko dañ dañ lay gën a bañ de kenn du la déglu moom buy wax si yow pour bañ la nit ñi bañ la moo tax ma ne amatul luy wax si moom moom lu muy wax si nit ñi moo fi am nit euh, taal bu yàlla taal nag bu doon man la damay wut sama benn mat rek soo amul sa mat sànni sa sab lal munu bu si sànni woon lalam tëdd biti sax a gën tëdd kaso mais faralul tamit xam nga waaw déggloo ma wan waxuma ku faral nit ak ku faral nee man xam nga àndeewu maa nit noonu bu ma déggee dëgg dama naan dëgg la bu ma déggul dëgg dama naan dëgg xanaa la songo jamaay mi ànd ak moom ko njëkk a nangul mhm. jamaay laa wax mhm. pour lan mu nangul Sonko mhm. président bu nangul premier ministre mi ngi dogaan loolu may la bu ko yàlla jagleel moom kese nit ki nag soo bëggee rafet ci moom ay mayam bàyyee ko ko rek. barki démb ñu ngi gis ci affaire bu conférence bi mu doon def fee ne. Euh, maire boobu ñu naan ñuy xajamal naan maire bi ay affaire monté la. Ah. du dëgg maire bi dañ ko loué xaw maire dañ ko waroon fay ah. sax. wax ci ah. bëri torop non maire bi mooy tappalekat mais Sonko du tappalekat. ndax lan parce que Sonko ni mu tëbee kuy tappale du tëbee noonu. maire bi bu ma fa newoon hôpital laa koy yóbbu laa wax du yegg si. nee nañ hôpital lañ ko jëlee andi ko. dégloo ma demul hôpital maire bi moo mani gancé loolu ñëw mais kenn yëgu ko. ah mais. waaw non maire boobu non moroomu meeram yi lay yàqal rek maire dina fi feebaraat euh, dëggantaan ñu ne ko da ngay lool loolu dong la. Ah, moroomu maire bi kon moo moo lool loolu pour dem si Sonko. loolu kese la léegi pourquoi ñu ne ñu ne ñu ne Sonko moo monté loolu. Sonko daa xam maire bi. waaw waaw loolu Sonko gisoo xoola bi muy dem bi muy wàcc plateau bi. Mm. tëb bi mu tëb moo lay wan ne xamu ci dara. non ah ñu ne ñu ne ñu ne ma gis kër yi kër yi gars yi di kii naan arrière leen vidéo ah, bi dégloo ma bi maire bi jógee gars di ko kii naan ko nan la jox sa xaalis ak yooyu Sonko na ko yàlla musal ci sénégalais yi mm. en tout cas moom na bàyyi xel ñii mu jiite mm. na bàyyi xel ñii mu jiite mm. bu doon maay moom dinaa bàyyi xel ñii ma jiite parce que stade boobu fees Abdoulaye Wade feesaloon na fi stade Macky Sall feesaloon na fi stade du dëgg mais feesal xam bi waa xaara fay bi sénégalais fayam du dara bu la fayee sax si la la gën a mën a toroxal sénégalais gisoo ko boo leen ànd nii dalay lay toroxal boo boo ko amalee bor mu toroxal la ba nga ne tot te Sonko yoreel na leen bor comme joxe nañ mill francs yi bu ëllëgee ku lay bañ ci mill francs yi lay lonk lu dëgg mhm. mille yi yaa xool sa yéene bopp ba jox ko ko daa laaj ne ku man ku man la wax yiñ joxe yëpp ñooñu danoo man man mi joxewul manu ma mm-hmm. yow mi joxewul manoo man joxe naa de waaye joxe nga da man ku man la wax ku man joxe naa mille francs am la Sonko tooñul kenna ku man dégguloo communication bi ku man na def mm-hmm. ku manul bàyyil ku mën na ñëw ku mënul bul ñëw ñi mën dem ñi mënul toog mais amul leneen amul mm-hmm. leneen en tout cas ñi ko nangulul yëpp seen gàllaajo ngi tojang ba pare gis nga euh, Sonko nii hmm? Sonko nii soo koy song dafa wara am nit ko doon man mun naa la buma neexon neexoon mun naa wax ban façon nit moko ko song. bugan bugan de mën na ko song. non xaaral mën na ko song xaaral ma wax la xama bugan ak sonko bokkuñ génération bugan seen rakk la. bugan après génération bi wara ñew sonko suivre 4 la bugan nekul si suivre 4 du deug kon bugan après mais bugan mom benen yef la parce que bugan bala politique nako nit ñi nangul ni ñi dàqa def social ci Sénégal bugaan kër Massa kër Massaar bi bugaan bugaan du dara xam nga non xaaral la léegi xam nga bugaan lu tax ñu koy nat balaa politique la bugaan doon faj nit ñi te duggut ci politique bu fekkoon dafa dugg ci politique ba pare di fajj nit ñi ñu mëna wax ku bax la yal na defal ko jamm ak salam goro sama xarit la bugaan goro jaaga jaaga sama xarit la leer na senegal gépp du dëkk kon yal na ko yàlla musal yal na ko yàlla defal jàmm ak salaam keroog bi ñuy dem euh, euh, Bakel bu jaan dofee xulool mbokk ma warta dof ñi mu àndal man ñooñu laa balaame gis nga bi buggaan meree ñoom ñoo ko waroon téye mais non gars buggaan nag suuf foofu moo tooñ foofu waaw a dem ah, ah, yaa ngi nii sama xarit nga mhm. léeg-léeg nga bëgg a def dara ma ne la bu ko def mhm. nga bañ ma wañ sa loxo. waaw bi ponkal yi mu jël noonu ñu nekk garde corps am bi muy dem ci kaw gendarme yi mu leeral la kii euh, su ñi muy dem seen kaw bu ci demee doo am accès si ñooñu du ñu koo jàpp jàpp ko. dama ni Tyson Mike Tyson nekk na ci boxe di xeex garde di corps dañoo ñëw meeb ko yanu yóbbu xanaa booboo gën a dee Mike Tyson bu Amérique ni mu doon faay ak Holyfield. arbitre bi arrêté ba paré mu continuer di xex garde du corps yi xam na lañ def Mike Tyson ponkal yi mu jëlone dañu ñëw ne ko meebet yóbbu ñooñu bi bugaan di dem dañu ko waroon ni meebet yóbbu ko ba bugaan delu si ñu wala du ni gi nga man buma andon ak mom Bakel muy dem bi mu waxee gànn ba paré bu accéléré si kanam pono yi lay tëdd du fa du bouger day jaar sama kan kaw doga dem lolu ayul parce que gis nga bor bobu waxtan si sax Euh, ci ku am xel waru waroo cee waxtaan xoola ñun xam nga la lañ waroon waxtaan ñun sénégalais yëpp focus si lan moo débordé dex bi ba mu dugg si parce que am na ñoo xam ne dañuy nekk foofu di jéem a sàcc or bi ak affaire yooyu mm. ni ñuy taf tafalee mm, pour miire kook yooyu pour bañ nit ñu dugg fa est-ce que nekkul loolu moo ubbi dex bi loolu lañ war a lijjanti mais ñun dañuy nekk ci euh, lekk ak naan mais du ñu nekk ci li nga xam ni mooy yàq dëkk bi waxal Sénégal quoi Senegal léeg-léeg dañ ko war di waxal ñu bëri du ñu waxal Sénégal nit ñi lañuy waxal du dëgg lool moy affaire bi mais dama ni bu bu gaan wax dëgg yalla fofu lu yalla tudon la amna. mais dal man buma ba paré tamit affaireu parti war nañ ci waxtaan parce que nga nekk ci parti ben nit wax ñëpp def tamit war na fi joggé bo leen démé ba seen nit mer yéen a ki mer na ngeen meet ko ba mu dellu ci ngeen bayiko parce que gaan tamit wu la waxal <laughs> waaw naqariwu la waxal nit ku oyof la nit ku baax la wax dëgg yàlla mais ñi ànd ak moom garde di corps yi ba buggaan di dem munoon nañ dem ne ko meebet yóbbu ba mu dal xanaa luus eh, nan la tuddati booy bi booy jaamu gën mbër mi booy njaago bi déedéet Laurent ah, keroog bi ko daanee mun mu taxaw si micro am naan am na lu ma fi nar a wax benn xale bu ndaw moo ne eh meeb leen ko bu bu mu ko fi waxee ñooñu meeb yóbbu waxar aywa aca ñu ñu ñu ñu ñu ñu suñu paree si ñu dem Samba Ndiaye toj na dëkk bi Samba Ndiaye Samba Ndiaye ah Samba Ndiaye Samba Ndiaye lan moo tax jumaay jomaay fi mu nekk nii nit ñi ñi ko bëggoon sax ñu ngi koy parce que gis nañ Asura influence premier influenceur am. jooy na jooy yu baal ma ko quoi man maîtriser gu ko seetaanoo gu ma ko. mais pourquoi déedéet li mu doon wax bu gaa li mu doon sànni xeet yëpp. non ah. wallaahi Samba Ndiaye mosuma ko seetaan bugguma wax nii te seetaanuma ko seetaan ñu wax. mais lan pourquoi ah, lu tax waxoo Samba Ndiaye. non mais parce que maîtriser. ma mooy actualité non mais nii nii su may wax Samba Ndiaye. lan laay wax Samba Ndiaye. mais Samba dafa nekk di sa di xas Sonko di ko kii ñoom jomaay jikki jékki jomaay jël ko moom moo ko jël. en andi ko mais ma Samba Ndiaye da doon mais seetaanaguma fi Samba Ndiaye di saaga. non saaga wul mais da doon xase. waaw mais yow yaa ma wax. moo tax ma ne la il faut ma seetaan Samba Ndiaye man lu ma maîtriser laa mais Asura jooy na jooy yu métti jooy Asura yi gis nga ko waaw Asura bu jooyee du am na jabar waaw ndax jabaram na ah bu amul jabaru jalam nax ko rek mbaa yaa non Asura bu ko wax waaw moom laa la wax mer jooy rek non Asura moom meram moom meram moom du merum dara ah ndax saf Kaolack bay saf Dakar Kaolack yow daal sa <laughs> <laughs> yaa ngi tëgg yaa ngi bépp ku bëri kër gi. non non ah. asura sama xarit la de. loolu seen affaire la yéen ñaar. non asura. yaa ni ma day jooyam. asura jooyam yi démb. ah mais. <laughs> xam moom dafa bëri ñoo xam ne. Euh, li leen di tax a jooy duñ ko wax. dee asura musul jooy. am benn naqar ba pare ko jooy si kaw askan te fekk na lool sax naqari parce que am na ndooyo ngi ni jooy yu la jooy ndeke li muy jooy mooy daa fel doomu jàmm di ko félee nit nag accident moom saa boo félee nit lu mu dee dee danañ la téye tuuti pour wan la féloo ginaar félul ginaar de. pourtant hmm. euh, kii chroniqueur la de yéen ñaar yéen a bokk mbuur. waaw doo ma may nga naan ma chroniqueur ku ne man chroniqueur la. Ah, damay wax sama xalaat. waaw ah, dëgg yàlla la ah, chroniqueur na. Hmm. yooyu xawatul de. chroniqueur ah chroniqueur yi ne fii yëpp ñu ci ku ci nekk daa am ku muy waxal di. chronique nag boo demee bay waxal nit wax dëgg yàlla nekkoo nekkatoo chronique kan la waxal kenn la moom yow comme doon waxal wax la kenn wax dëgg ah, yàlla opposition bi da la doon défendre bañ na ko ba euh, ñële di mitin mu ñëw ca mitin ba koo kay jël na position moo tax jooyi du safe mënoo bokk fenn ba pare di jooy fee du safe waxal rek ut foo bokk ba pare di jooy ngir Sonko wala ni Sonko mel ko na xarit daal xaw ma lu muy jooy bu dee sa gaañ la ay na ni Sonko mere ko naqari Sonko taay daa baax de di sañ sa lu rafet xeeñ lu neex kenn baareetu loolu lay jooy xam na. <laughs> jaajëf <laughs> jërëjëf daa ko baarewuñ ko. <laughs> Jimbori am nga eh, eh, eh, jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax baax. sant di la gërëm bu baax. gërëm sama jigéen bi bitig bi ma fekk ama waa kër Ayda Ndiaye. Ayda Ndiaye ba daloo waaw jënd daal li ma ko waxee rek. yow tamit nga jënd wut ñuy jënd. ah jéem a ah, <laughs> woon kay. waaw kay war ko si boole jaajëf. Ah.